bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi te du nu seetaan ñu ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñu ci am bànneex bu mag mbégte bu mag ci xam ne yéen a ngi suivre sunu programme yi te nu bokk kook yéen macha allah dooree émission bi nanu ko baaxoo defee képp koo xam ne sunu kilifa nga nu ngi lay ñaanal yàlla ba noppi nu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan bu ànd ak wér macha allah yàlla yiir la yàlla aar la njaboot gi macha allah bu ko defee itam dinañu taxaw ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy ñoo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla yal yàlla defal leen gudd fan bu ànd ak wér macha allah. lépp loo xam ne daal yéen a ngi koy mébét <coughs> pour askan wi yal na leen yàlla dooleel ba ngeen attan ko te mu nekk macha allah ñu taxaw itam seet ñi nga xam ne bu ñu toggee fii di def émission wareef ñoom ñu ngi ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi ñoo ngi leen di nemmeeku bu baax a baax a baax di leen ziyaara di ñaan yàlla mi dara tewul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wéral leen ba nu gaaw dellu seeni biir njaboot waaye itam beral nuyoo ñi nga xam ne ñoo baaxoo di leen gunge kuy dox sa soxla da nga soxla ku la dooleel ku la gunge sàkkatumaak nag nga tëdd ci béréb yooyu hôpitaux yi ak cliniques yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax acteur de la santé itam di leen beral nuyoo ñu ngi ziyaara ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo nekk à l'intérieur intérieur ak extérieur sax lañu koy waxee waaye bàyyi itam xel ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di ziyaara di leen massalu coono toggaay yooyu di ñaan yàlla yàlla na ngeen fa jëlee macha allah yokkute ndax yàlla lu mu def rek xam na ko bu dikkee ci situation yu mel nii ñu ngee ñaan yàlla mu fees dellu suñu xol moom suñu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo gis ci àdduna rek càngaay la yàlla doon càngaay bi gën ci ñun macha allah ñuy fàttaliku ñi nga xam ni ñoo baaxoo woon di ànd ak ñun tey ñu nekk ci njéggalu suñu borom njéggal googu yàlla na ko suñu borom yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy fàttali sunu wasila bu baax ba sunu maam maam Cheikh Tidiane si almaxtuum yàlla na yàlla jéggal ko yal na yàlla yokk leeraayu bàmmeelam macha allah képp ku fa nekk te ngay woon suñu soppee di suñu mbokk di suñu xarit di sunu xaritu xarit noo ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla ubbi buntu wërs buntu wërsëg yu yaatu ya maanaam wërsëg yu yaatu yi wërsëg bi jiitu ma mi defe naa ne aljana ca la bokk ku yàlla may aljana may na la wërsëg bu dul jeex ñuy wax bismillah sunu baay sey Issa Lay Diop ñu ngee kontaan bu baax ci dalal la di kontaan ci anam yu bare bare bare mm-hmm. waaye yow itam Ndiaye délégué de Ndoye Bane ah envoyé de Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm. Mhm. di la ñaanal yàlla may wax nag ajaratu mami Linguère bisimilah. kontaan nañu ci teewaay wi. yaa ngi woon ci sarax bàyyi yàlla ko yàlla yërëm. wallaay wallaay wallaay comme li nga wax rek xam nga ñun moom comme daanaka dañoo judd jotuñoo miin baay. Mm. barki démb le 3 di woon bés bi mu fi jóge woon. dëgg la ñuy delluwaat di ñaanal suñu soppee ak suñu xarit yeeg sénégalais yépp nañ ñu ko saraxal rek ay lixlaas. dëgg la ndax fa ñu nekk loolu rek moo leen fa mën a jariñ. Mm-hmm. Maxtaar Ndumbe Diop daal na ma ko ñëpp ñaanalal ndax mooy sama waajur ñu ngi koy ñaanal Diop kon dañuy door nañ daan dooreet ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore ñi ngi ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal sunu maam Cheikh Tidiane Almaktoum yàlla yàlla yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem moom itam sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér moom ak mbooleem sunu xalif généraux yi te yàgg waaye noonu itam nag la ñuy yaay dëggéen yàlla na giseek soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamara jibante boo yaaxa jaa yàgg fi loo fi yàgg doyul mama kinushka yaay na fi njaboot gi yëpp la ñuy ziyaare maire Issa Diop yaaba itam ak mbooleem ay xaritam ak gànfooram yëpp bàjjen awa Diop suñu bàjjen ñu ngi koy ziyaar di ñaan yàlla suñu yaay yooyu yàgg fi loolu te wér Eva nag comme ku wal mburu tuddub dëkk damaa demoon nag ci samay bokki bopp dëgg la muy kër Amadou yàlla mhm. di suñu dëkku maam boobee nga xamante ne sëriñ Modou Moustapha fa teewoon ne sama dëkku maam du gent mhm. ñu dem fa nag daanaka def fa weekend bi yëpp yëpp kon dañuy gërëm mboolem askan wi fa teewoon ci sama tur ñi ngi leen di delloo njukkal ci tur Amadou Botor Diop mhm. waaye njukkal lépp dañ koy teg ci lingeeru lingeer yi muy bàjjan Dior ak Pape Moustapha mhm. Isbu ci ñoom lañ koy teg dellu di santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp Eva bismillah di wax nag moom maak moom ñoo bokk <laughs> ba tey te Ndoye Bane bay tax taxal bu tax yi taxee ne ko yaa tax ci ne ko yaa tax te lépp ndoy baana wax fa dëgg yàlla na yàlla may nañu ñu la ñu mën lu di ko delloo njukkal googu kontaan na ci dama dama naan du ma mukk ci teen naan yàlla teen bi sakk jamais ndax sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bañ ne ko diw daa jaay ngorom dañ da ko amutoon ngor ak ni mu neexee ku ko jaay mosoo ko am mhm. suñu papa lay lay maxtaar lay sëy naa ñu ngi lay ziar di am mbégte bu baax a baax. Adja Linguère bisimilah macha allah sañse bi rafet na arc-en-ciel laa ko tuddee. Hmm. waa xam nga bu jamono ju nekk ak li muy laaj. Hmm. dañoo toll nag ci jamono yi di waajal màggalu Cheikh Mouhamadou faadal hmm. ki nga xamante ne borom na taw mu taw boroom na am mu am. kooku la ñuy waajal màggalam gi. damay tàmbali nag daal di indi ci Baye Fall gi ndax maam Cheikh Ibra moom dana ko woon moom du ko fàtte waaye fàttewu ko ndax kuy dugg Touba ak sorom bi ngay njëkk a seen Cheikh Ibra ne ca kaw moo tax rek ma indi ci Baye Fall gi yàlla màggal yàgg <laughs> incha allah Baye ñu ngi lay ziara bu baax di kontaan lay maxtaar ñu ngi am teewoon nga fi daaw yàlla na nga fi yàgg teew amiin yaa rabbi bisimila bisimila bisimila yéen de bu ñu dee waxtaanee dialogue islamo-chrétien bu ñu dee waxtaanee le bon voisinage da ngeen caa xam lu bare macha allah fekkee ko ba noppi xam ci lu bare macha allah ñu ngi lay wax simila di la nuyu. ñu ngi lay fay eh, di sant yàlla subhaanahu wa <coughs> di julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa ci ñaari wàccuwaayam démb ak tey. Mm. di am mbégte kontante. ci teew ci seen jotaay bi uh-huh. waaye di profiter di ziare uh-huh. suñu sang suñu xalifa xalifatul muslimin Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye uh-huh. di ñaan suñu borom ba subhaanahu wa mu bàyyil ñu ko fi mu yàgg lool amiin yaa rabbal ànd ak wér ak sutura ak teraanga ak noteel te sans borom ba bàyyi kook sagoom ak xelam naka noonu mboolem njabootu ahli bayt Seydina Limaam Mahdi alayhi salaatu wa waaye tamit di nuyu kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi yàlla suñ borom ba dool leen a dooleel ba njaboot gi leen yaakaar topp ci ñoom yaakaar jëm yaakaar ci moom ñoom yàlla bu yaakaar tas yàlla nañu tegtalu ci yoon wi nga xam ni moom lañ leen jaarloo te yoon woowu mooy yoonu mucc te damay wax ne dafa am ñu dañu war di far ndax bu bànd yi ak sàcc yi mën a former ay gang di far di toj magasin yeeg bitik yi ñooñ lislaam war nañoo mën a ànd takku nekk aw say te xam ne ñoo bokk ndey ak baay kon nag moo tax ma ne njabootu islam gi Sénégal. wékku ci ginnaaw kilifa yi leen jiite. yal na yàlla dëppale leen ak ndigalal kilifa yooyu. amiin te ñuy dolli ziar bu baax ni ma ko waxee. ñu yàgg dëkk dëkk bu rafet nag. ak suñu mbokki chrétien yi tam. waaw mbokki chrétien yi tamit ñu ngi leen di ñaanal dëkkuwaay bu jàmm ànd ak jàmm. amiin ndax suñu borom bu moo dogal ñu bokk ci kaw suuf ñu di ay doomu aadama. Mm-hmm. Euh, mbokk mi maa ngi koy déglu fan yi passé ci seen waxtaan. dëgg la. Euh, ndax waaw njaay euh, ndax yàlla des fois day wax fii mu ne yéen nit ñi fii mu ne yéen jullit ñi mhm. fii mu wax yéefar yi fii mu wax way boroom xel yi kon bu nit ñi nag bu leen waxee dañoo bokk benn bloc ñu bokk àdduna yàlla di xéewalal jullit bi di xéewalal ki ko gëmul dëgg muy am taraanga di am tedd nga tubaarkaala ci kaw suuf fële nag bu ñu àggee nag kaka soob mooy ko toppoon ay digleem. macha allah foofu nag lañuy ñu xàjjaloo. waaye fii tronc commun la. macha day mel ni mu njàng rek. dëgg la da ngeen daan def tronc commun ba yàgg spécialisation daal di jàll kenn ku nekk beru aw yoonam. dëgg la macha allah kontaan nañu lool kontaan nañu. <coughs> Euh, yow itam Ndiaye Diatta bisimilah élément doy baan. tey moom dama am problème ñetti njóobeen ci benn plateau vraiment dama am problème. <laughs> déedéet biir lañ ko biir juliyee nañ ko njaay la njaay ah. la sant waaye euh, xam nga njaay moo gis marchandise moo gis am na borom nag njaay moo gis marchandise marchandise bi mami xam ko woon bu ne xam na ko rek <laughs> mais marchandise boo gis moom moom borom bi similaire que marchandise moom moom mooy peese boppam mbaadu gis nga xam la muy jaar waaw gis nga ñu ngi wax bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mm. di nuyu téléspectateur u euh, Télé Futurs Médias yëpp fépp fu mën a nekk ci àddina bi ñoo ngi leen di nuyu. Euh, di nuyu waa altu ndàngal ma. di nuyu sama ñaari yaay yi ak sama bàjjen yëpp. boo leen nuyoo ba pare. daanaka li ngeen nuyoo ñaan la te ñaan bi dañuy ñaan rek yàlla nangu ko moo tax daanaka duñu am beneen nuyoo bu gën a kawe li ngeen nuyoo dañuy dem rek li anglais naan straight to the point mooy dem directement rek ci sujet bi tey mami li mu def ni di waajal màggalu sañ Fallou boo ko doon décrire ci stylisme dañ naan la fi nga waaj jëm kooku ñëpp la boole moo tax nga boole couleur yëpp. maanaam dafa def patchwork. waaw ñëpp la boole moo tax nga def nii. macha allah mbokki téléspectateurs yi waxoon nañ leen kon ne leen ñu ngi leen doon ñaanal feetu indépendance jàmm yàlla may na nu nu fekkee gis ngeen démb macha allah programme bi nu mu jaaree yoon ci télé bi nga xam ne mooy seen télévision TFM. ñu ngi leen di gërëm malal daal ñu ngi koy gërëm ndax démb suivre nañ ko suivre nañ itam suñu sunu xarit suñu soppe ba Baye Abdoul Aziz Mbaye maam mm-hmm. Fama nu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ziyaara itam soxna Aysatu Diop Fall ndax gis nañu ci guddi mu daal dee def moom itam wàllu jigéen ñi ne xam ngeen ne loolu daf cay am solo mm-hmm. amul lenn luy am ci àdduna te jigéen ñi indiwuñu ci seen apport rawatina nag yàlla jox leen ñu am une main verte macha allah ku lu ñu laal lu ne rek yàlla barkeel yàlla na taxawaayu jigéen yàgg ci société bi ne bu ñu waxee année indépendance yi xam ngeen ne góor bu ci demoon di di di ut indépendance di ko laaj ngay kilifa jigéen ju baax a nekkoon sa mm-hmm. gis gis ñu itam ñu doon gàdd gàddu pancarte yi waaye ànd ak lu mën ci am dinañ ci xuus tuuti ci kanam ànd ak bàyyi sey dinaa Issa Laye Diop daal di waxtaan indépendance neex na am sa euh, am sa bopp neex na waaye nag nga xam fi nga jëm itam daf caa baax. Mhm. boo xëccoo indépendance ba am ko. Mhm. ah am na suivi bu mag bu nekk ca kanam boo xam ne. Mhm. kooku defe naa ne mais dans la main la ñu koy réussir bàyyi. dëgg moom waaw euh, indépendance moom xam nga mooy moom sa bopp ndax ñun suñu borom ba subxanahu wa moo ñu moom ñun ñëpp. kon boog. noteel gi nga xam ne kii day jóge ci doomu aadama loolu moom lu ñu war a bañ la xam naa moo tax sax sama mbokki lébu yi ñoom doon imigré jóge penku di ñëw gox bu ñu nekk def fa ay siècle lu yàgg soog a jógewaat foofa bu ñu leen bëggee not laa waral au douzième siècle ñoom ñu ngi woon ci boori Jolof waaye ginnaaw bi dañoo wàcc si ba ñëw nekk fii ci tundu jandeer yàgg nañ fi ay siècle après lañ fa bàyyi ko ñëw fii tey ñuy wax mbooxeex dëgg la mbooxeex mooy ci stade de l'amitié mhm. tolloog fi lycée moderne bi nekk waaw foofu la léegi installé woon balaa ñu doon àgg yoof c'était en 1432 d'accord ginnaaw bi nag lañu ëgg si yoof ndax fu ñu leen bëgg a rek ñoom ñu jóge foofa ndax bëgg indépendance bi ñu ëgsee ba yoof nag mhm. lañ fal seen jaraaf en 1436 mhm. yoof nekk na plus de cent ans Dakar yu soog a ñëw Ngor di soog a ñëw Wakaam di soog a ñëw waaw moo tax nag foofu lay tàmbalee ndax mbokki lébu yi euh, donte bëgguñu ko leen not waaye dañoo mas a yaatu ku ñëw ñu daloo la moo waral en 1843 ci la fi euh, monseigneur Truffet jëkk ñëw mm-hmm. monseigneur Truffet bi mu ñëwee dafa dem ci ki nga xam ne kii moo doon euh, kilifa gi di Serigne Ndakaaru moom dëkk bi mm-hmm. mu nekk dañoo bëgg ngeen may fu ñu def école école boobu mu doon wut mooy école française bii am tey ci réew mi ñoom bi ñu ñëwee pour Ndakaaru ndax boobu Ndakaaru dafa nekk Cap-Vert mm. république lébu république lébu bu indépendante mm-hmm. diggaale ak république française waaw mu nekk deux grandes puissances yu doon signante des accords waaw booba français yi ñu ngi nekk fële ci gore mm-hmm. de sorte que dañ signante woon ay accords mu nekk donc euh, les accords de 1826. Mhm. jàpp 1830. Mhm. lan la woon mooy frontière maritime bi lii am du diggante ak euh, Mauritanie. Mhm. boo jéggee zone maritime ba jàll ci parasu jàmbur. waaw da ngay fay ay droit mbaa ñu jàpp la booba suñu diggante ak gore tubaab yi nekk fële. dafa amoon frontière ñu signante ay accords. accords yooyu nag daan tax tubaab yi buñ ko franchir dañuy fay ay tax lébu yi. ca tàng boobu ca jamono boobu. waaye lébu yi ci seen ak yaatu nag ak tabe ñu jaay leen fii nga xam ne moom la belleer air nekk. waaw ñun man faa def seen i armeel ba tey 1500 lañ leen ko jaayee à l'époque donc Monseigneur Truffet nag bi mu ñëwee. Mhm. ñu yaatal ko fi mu nekk fi ay at. Mhm. ba mu delloo nag mu war a def compte rendu à ses supérieurs mhm. mu bind lettre boo xam ne mu ko bind le 30 novembre 1847. waaw. a euh, à, à, comment à l'archevêque de Chambéry mu naan que le Cap Vert où nous mu ngi koy rendre compte mu ne fii euh, dans chaque famille il y une école ndax kër gu nekk daara la woon ah. mu ne ils passent tout leur temps à lire la Alcoran waaw mu ne nag waaye fii il n'y pas de vol ni de meurtre ni de viol est-ce que sont d'une hospitalité légendaire. macha allah alors yaatu googu Lebu yaatu woon jamono boobu nag. Mhm. moo waral ñoom tim ñu daal di nangul. loola moo monseigneur Truffaut bëggoon mooy ñu samp fi école muy école française bi tey ci la lawe bu egsi fi ñu egsi googu la yaatal ñu yaatal nag moo jàll ba. li ngeen di wax ci relation diggante jullit yi ak chrétien yi. ndax maa ngi lay bëgg wax ku wax école française di nga def ouverture jëm ci ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki chrétien yi. absolument ndax euh, loolu moo nekkoon seen bunt la preuve ki ñëwoon doon ko sàkku. Ah. mooy monseigneur Truffet. Ah. monseigneur ki boo ko déggee xam nga yaa ngi jëm. yaa nga ca église ci jàngu ba. wallaay wallaay muy rendre compte kan archevêque de Chambéry. Mm-hmm. kon ba tey mu ngi dem ci kilifaam. Mm-hmm. ci wàllu jàngu bi. Mm-hmm. di ko rendre compte gi kële buy jaatal fii. ci Cap-Vert gi macha rafet na ba dee Ndiaye euh, Ndiaye maa ngi lay bëgg na Ndiaye ndax kontaan. Mhm. Euh, Diop euh, waxtaan bi ubbi nañ ko. Mhm. ni woon naa leen tey mbokki téléspectateurs yi dinañu wax tuuti rek ci indépendance def nañ ko. Mhm. waaye tam dina ñu wax bon voisinage bi ñu am ñun ak suñu mbokki chrétiens yi bi ci am solo itam mooy di magnifier di di di wax sargal ñu ngay sargal jigéen yi nga xam ne danoo am doom yàlla dogal mu autisme wax dëgg yàlla yàlla dogal mu am malformation ñooñu itam bonne continuation parce que mbir mi danoo commencé rek àggaguñu fenn ñu ngi ñaan yàlla xale yi màgg ci jàmm ak salaam macha allah. waaw euh, Eva euh, ñi ngi kontaan ci sëñ bi fi mu jóge ak rappel historique dafa am solo euh, fi may ñëwee si indépendance bi rek mhm. nañu xam ne ñun la suñu maam yeeg suñu baay yi taxawoon mhm. porte ay pancarte ne dañoo bëgg suñu indépendance mhm. ba De taxaw ne bu fekkee da ngeen a bëgg indépendance jël leen. kon ñun war nañu am maturité bu toll ni. ñu won leen ni ñun am nañ capacité wu gérer suñu bopp. jamonoy maami Sira Diop. voilà Jowja Ndiaye. ñooñu ñoo ko defoon ñoom Mbaye Sakh Diop. te danga wax ne lu ji góor laaj jigéen a ngi ci wetam. pour te bi De ñëwee. ki jëloon bouquet fleur bi jox ko De jigéen la. est que. jigéen moo jëloon bouquet fleur bi jox ko De kon Sénégal dafa mel ni lu mu mës a def rek. jigéen nga da ci associé jigéen. kon mosuñu bàyyi jigéen mu des ci gannaaw. Mm-hmm. Euh, responsabilité boobu nag. feet bi neex na xumbeel yi neex na li ñu suñu armée bu woy won doy nañu dëgg si kaaraange si professionnalisme ci lépp loo xam ne ci champ de guerre yi nga xam ne taxaw nañ fa maintien de la paix yi ñuy def ci monde bi li ñu suñu armée bi won doy nañu loolu nag bu ñu doyee ñun dañu discours président ñëw dolli ca waaw discours président wax na ak ñam war a waxal bi ci des mooy euh, ñun suñu bopp muy sénégalais bu nekk danga am responsabilité ci indépendance boobu nga sàmm ko ah sénégalais mooy li may wax rek ne ku ne da nga am sa wareef. dëgg la parce que nit boo xamee sa wareef. kenn du la jam te di ko def nag xam wareef ba pare di ko def. kenn du la jam président doon na wax ne boo defee li la war. am am la war boo deful li la war. da nga naan nuus ne yaa ne yaa sar sa yaa ci indépendance ne li ci des nag sa kuddu kafe la yaa koy suukaral sa bopp. est-ce que waay ba muy woy indépendance. waaw boole woon na ci loolu. moom moom ca boppam moom rax na ci kuddu café. borom ma koy suukar. est-ce que woy indépendance kon kenn mënees koo weddi kon euh, euh, indépendance bi pour mu dox mhm. yow yaa koy doxalal sa bopp kon nag bu fekkee ne yow d'accord nga ne téye indépendant mhm. foofu la ñuy glisser dugg ci suñu diggante chrétien kon danga nga war a d'accord keneen indépendant ouverture dikk ouverture boobu dikk ñu war a mën a booloo nekk benn mhm. te ñun jullit yi nag dañu war a dëkk ak suñu mbokk catholique yi chrétiens yi beaucoup de tolérance parce que ñoom ñu ngi ñi taloore seen weeru koor jàll na gisuma benn chrétien bu baare mbedd def def conférence te pourtant. Ah. religion la ñor. gis nga paramètre bi ngay dikkee yow itam. Euh, côté bi ngay ñëwee. gisuma benn euh, chrétien bu baare mbedd def cant wala def ay jàng ñun ñooy def ay jàng donte lu baax la ndax dañuy ñaanal réew mi. te mhm. réew mi ñun ñëpp ko bokk. Mhm. mais dafa am koo xam ne moom religion peut-être nekkul ci loolu. Mhm. kon heure bu ñu tàntatee war nañ leen a jégalu. heure bu ñu baaree te mbedd mi war nañ leen a baal wax parce que ñun ñooy baare mbedd mi def ay conférence te ñoom dañu def seen weeru koor 40 jours ñun 30 jours la te bu ci suñu 30 jours dinañu baare yoon bi presque ci 30 jours yëpp chaque jour ñu def baare benn mbedd def suñu conférence te pourtant ñoom dañu am droit jaar ci yoon boobu te ñu ngi koy taloore di ñu ko muñal kon ñoom it leneen loo xam ne lu jóge ci ñoom la ñu ne war nañ ko mën taloore d'accord parce que ku ci nekk religion nga yor Youssou Ndour wax na ci benn woyam nee na ak nu mën a demee waxtaan moo gën xuloo te guerre mondiale sax ci waxtaan lu mujj kon nañuy waxtaan te lii ngeen def nii waxtaan la ndax tey am na koo xam ne tey mami bu toogee indil nga wu ñu baree baree bari lu ñu bëggoon a wax mu wax ko yow soo toogee indil nga voix ñu baree bari looloo tax suñu peut-être indépendance mu am nañ indépendance médiatique parce que ku si nekk yaa ngi génn li nekk si yow mhm. te gis nga wax su amul woon gis nga wax su amul woon mhm. explosif mooy am ah bu ma doon dikk ci yow dama lay wax ni la xam nañ ne bu ñu remonté histoire wax dëgg yàlla jigéen ñi. dox nañu jéego yi am solo. wax nañ ko fii ci 8 mars. Mhm. talaatay ndeer gis nga ko mhm. gis nga soxna yooyu nu nu def. kon taxawaayu jigéen itam yàgg na. man na nag indépendance bi li ma ci gën a neex. lu la ci gën a neex. mooy dama gis jigéen ñi gën ci fés ci gën gënuñu ci fés mais dañ ci fés. Mhm. mooy que li ñu ñu wan ci suñu armée bi yëpp amul fenn fu ñu génne te gisoo fa ay jigéen. macha allah mais ay jàmbaar. dama ciy delloowaat njukkal rek jigéenu gendarme yi ñu toogaloon keroog. dëgg la mais ma gis ci lu ma ci gën a neex mooy boo demee ca camp sapeur pompier ba nekk parcelle jigéen a ko jiite. Mhm. dëgg la di xale bu ndaw ci niñ ko wanee. donte mhm. xaw ma ay atam mais ci gis-gis. Mhm. ma gis ne boo demee ci eaux et forêt leen di wane ñuy entraîné tam. ma ciy nuyu Chérif Xataab Diop sama mag ji leen jiite woon. ma gis ne jigéen ñaa nga fa. fu ñu ci wane rek jigéen ñaa nga fa kon moo lay wan ne jigéen ñi nanguwoo ñu mus a des ginnaaw benn yoon. mais bi ñu laajee indépendance ba pare peut-être ñi ngi koy naan am nañ ko ci tubaab bi waaye ñun ñoo amul indépendance ñun ci suñu biir sénégalais yi mhm. ndax parce que muñalante wuñu mhm. jéggalante wuñu jéllalante wuñu bu ñu demee ba ñun ñi laaj indépendance su indépendance ba sax kenn ku ci nekk yaa ngi xool ci sa morom nii la waroon toogee toogeewul nii nii la waroon waxee waxeewul nii nii la waroon defee defeewul nii ma yaakaar ne mbir soo koy laaj comme li baara wax ba jàmbur ba ca mbedd ma jox la ko yow mi mu dal ci say loxo nag war nga koo mën a attan war nga ko mën a gérer mais war nga ko mën a séq ak ñi nga ko bokkal ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké suñu sëriñ bu baax ba daf ne woon àdduna ñett yi rek a am li nga moom li nga bokk ak li nga doonul dara li nga moom yaag sab nawlee ko bokk jëlal la nga ca yam fa ca des nga bàyyee ko ko mm-hmm. la nga bokk nag xamal ne yow mi itam da nga caa bokk itam nga dox ca la nga ca war a dox mm-hmm. la nga doonul dara maandu ca ngir noppal nit ñi mm-hmm. bu ñu ko doxee woon rek kenn du sonn waaye sénégalais dangay gis ne léeg-léeg dañuy dem ba ci biir da nga naan est-ce que ñun am nañu indépendance parce que da nga da nga ciy bëgg jël yow li nga moom xañ ko sa nawle bi nga ko bokkal su boobaa indépendance taxawatu fa mais beneen bi ci topp mooy que ma gis démb doxin wi rafet mm. bu ñu fàtte suñu ancien combattant yi parce que gis nga lu ndaw am tey mag a ko xeex ba teg ko ci loxoom ñuy ay mag ñu am jom mm-hmm. ay mag ñoo xamante ne ba ñuy dem metti woon na mm-hmm. ndax dañu fee bàyyi woon ñoom yaay ñoom yaay di jóg di daanu kon ba tey ñoom ba ñuy dem di wuti jigéen a toogoon ci kër gi di leen xaar yoral leen njaboot gi njaboot googu tey booy xool ñooy dog toogoon nañ fi yor kër gi mhm. yor njaboot gi mhm. dépense daawut mat ku nekk xamoon na ne jamonoy télégramme la xaw ma lan bala ngaa dégg sa borom kër yàlla rek xam kañ la mhm. ñenn ñi yaa ngi may yóbbu ci la ci la mandat mi ngi noonu mandat ku nekk gis na lim fi yóbbee maire yi boo ko weddee rek xool ko ca bu papa ma xura jege ba yàlla na yàlla yokku nga jóge ci loolu ñëwaat ñu dellu siwaat jëlal jëlal ci ci li nekk bismillah allo. waa allo. sëriñ bu baax bi noo def. waa allo salaamaaleykum maa ngi sant yàlla. waaleykum salaam wa rahmatulah ñun ngi sant xanaa di la déglu ci li ñuy waxtaanee ba xam loo ñu indil. waaw loolu laa bëggoon wax ci participer nii tuuti parce que maa ngi leen di woowee France. naka waa mhm. France. Eh, sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah. waaw mais ma bëggoon euh, rafetlu kii bi bon voisinage bi ngeen wax ci entre religion. dëgg la. waaye dafa am lu tuuti lu ma ci bëggoon a participer tuuti mu doonoon suma xalaat bu gàtt. yow rek la ñuy waaw ndaxte pour man ci sama gis-gis gu sama gis-gis. Mhm. Euh, am na lu des. Mhm. parce que bon bu dee ci côté musulman bi am na lu bëri lu des parce que xëy na ñu bëri nawloowuñu suñu mbokk chrétien même bu fekkee ci ay wax la nii rek. Mhm. mais dafa am lu bari lu des. Mhm. te yàlla rek a tax may wax. Mhm. waaye dama bëggoon euh, li ci ëpp solo ci biir mbir mi rek. mooy ne bu ma fàttalikoo wala ci sama xam-xam gu gàtt. Euh, yonent bi sallallahu alayhi euh, yaakaar naa ne du maamu kenn Sénégal. ci yàlla instant du maamu kenn senegal donc diine pour man ci sama gis-gis ah yàlla moo ko moom moom moo ko santaane ci bépp doomu aadama te am na benn côté boo xam ne su ma fa xoolee dafay mel ni ne ñun waa senegal dañuy xaw a fàtte sunu borom ndax yàlla mooy lépp te yonent yi bi ñu fi ñëwee itam oo ootelun seen bopp dañu oote jëmale ci suñu borom tabaraka wa taala amul benn yonent bu fi ñëw ne la jaamu ma wala defal lii defal lale lépp ci yàlla lañ ko oote bu ñu ñëwee ci suñu kilifa yu baax yi ñi nga xamante ni nitu yàlla yi nga xamante ni yàlla may na leen may nañu wërsëg boobu senegal ñu nekk fa bu ñuy oote ci diine dañuy ne roy leen suñu yonent yi yonent yi maanaam royukaay lañ leen waral roy te lu lu loolu yëpp dafa am pour man lu bëri lu ci des parce que ñu bëri dañu jël diine def ko moomeel pour man diine chrétien ba moomu ko. Mhm. musulman ba moomu ko. yàlla moom moom diine te moom la ñu yaakaar ndax bu ma euh, sama xalaat bu may kii bu may xalaat ci yenn kii yi yàlla bu muy oote ci jullit wala ci yàlla dina amu nuy allo. ku baax kooku dem na wax dëgg yàlla gis-gisam gis la nu ngi koy ziyaara mhm. ci woote gi mu wootee mhm. joxe xalaatam àdduna nii la balaa àddunay neex dafay fekk gis-gis yi wuute mhm. xalaatin yi wuute mélange boobu yëpp nag mooy def li nga xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci nekk macha allah mami itam nekkoon fu fu am solo xam nga li nga wax dafa am solo ñàkk boo ko bëgg-bëgg moo tax waa Sandaga di xëy di jarle ñoom itam ku nekk la ngay jaay sa morom am na ko di mbaa du kii day jaay montre ndax xam nga nag kaas yee wute waaye ku xëy guux bu tàng beeg bu sedd bee fi nekk dëgg la koo jàppee noonu rek macha allah dellu si waat ci dëkkandoo bu rafet bi ñu doon waxtaanee itam axanka ah, yi man de gis naa ne dëkkandoo bi rafet na lool lool xam nga lu tax mm-hmm. li ñu jot ci doomu félicitation dëgg la ak waxtaan yu rafet ci bi ñu commencé tem beeg léegi dëgg man dama naan jullit yi sax ñoo ci ëpp chrétien yi mm-hmm. te kenn ku ci nekk yaa ngi rafetal jëmale ci sa mbokkum chrétien moo dëkkal mm-hmm. naan lam ma defal ca teraanga lam ma liiwal ci teraanga xëy na nag da dina mbir feeg waxtaane wuñ ko doo mën a xam tollu tolluwaay ba fan la ci toll ñu bari itam nag di ci remercier waa TFM ci jéego bu rafet bi ñu ci def a ah, ngir waxtaan wi ñu ci def nii ku nekk nga koy rafetlu mm-hmm. te ñoom itam ñu rafetlu li ñu leen defal mm-hmm. ndax defaluñu leen ko suñu bopp lañ ko defal ndaxte amul benn famille boo fiy génne mm-hmm. koo xamante ne amoo mbokk wala xarit wala sa waa kër takk ci ñoom te man du ma ne sax ñoom ndax ñunu nee na lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci li baara wax rek lu day lu am solo mooy que nañ leen gën a joxaat seen yelleef itam mooy que liñ ñu dul xañ ñun ñun buñ leen ko xañ wala suñu leen ko xañee pare nañ am ngor gu tax toll ne ak wàcc gu toll ne taxaw ne leen jéggal leen ñu ndax comme ñoom dinañ moytu di ñu lor ñun bu ñu leen loree ba pare nañu leen baalu àq ndax baalu àq dafa rafet lool mami jërëjëf Baara dafa wax rek benn partie bu ma neex rek euh, ñu gën a bàyyi xel léeg-léeg mhm. dinañu tànt mbedd yi ñu wax ko mu leer ndax léeg-léeg sax wax di nga ko wax mu am frustration nanu dalal kii ba pare salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah mbokk mi bisimilah naam na nga def man de dama foogoon ne 313 la sax bisimilah. soxna <laughs> Mamy na nga def. maa ngi sant yàlla naa baax leen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi rafetlu seen émission bi. jërëjëf. Eh, xam ne ñëpp ay doomu aadama lañ. Mm-hmm. yàlla moo ñu bind. Mm-hmm. te bind bi ñu bindee yamalu kenn ku dafa am lu mu topp loolu nañ jàpp nañ ñëpp ay doomu aadama lañ kenn ku ne mm-hmm. topp sa diine te maandu. ndax jullit du fen te jamono léegi fen yi dafa bëri lool. ak ñàkk yéenal ñàkk yéenal li nga xamante yéene woo sa bopp. dëgg. ndax mën na jullit de yéene moroomam jullitam yéene boppam. Mm-hmm. mu mel ni tabax tabax mbay moo la ko boole mool yi ciment moo nekk seen diggante. Mm-hmm. ñun doomu aadama yi li ñu war a rafetal mooy sunu al moominu mosin mm-hmm. moominu maam ji na yàlla dogal la yàlla nangu na yàlla lu dogal la. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga dimbalee mm. nga nangu téere yi mu waajal mm-hmm. ndax kenn ku ne waaj na ku mu ku ne waaj na téere ci yow alquran ñëw mujj day rafetal kenn ku ne kenn xamul sa morom fan fan lay mujj mm-hmm. ci baax ak ci bon dañ yàlla ñi nga xam ne bon nañ mm-hmm. yàlla jubbanti leen ñi nga xam ne yéene wuñ lu rafet yàlla defal leen yéene yéenente lu rafet ñi nga xamante ni bi tey dañuy def naka sudu noonu yàlla jubbanti leen bind ci man lii laay wax maa ngi leen di nuyu di amandoo baan nuyu leen ma ko bu gërëm seen émission bi nag. ak émission xaar yëpp maa ngi koy déglu di ko seetaan à télé. jërëjëf jërëjëf macha allah mooy na ñaan yàlla mu ci rafet. ma macha allah yal na nu yàlla may mujj gu rafet macha allah di xam ngeen ne li ñoo waxtaanee nii moo tax bi ñu waxee le 2 la ñu doon célébrer li nga xam ne mooy journée xalelu autistes yi ci ci ci àdduna bi euh, dafay bokk ba tey ci bon voisinage ndax danga am sax koo dëkkal nga dëkk moom moo xam jullit la moo xam catholique la doomam ñëw dikk ah dikk boo xam ne dañuy wax ne diw dafa am malformation diw autiste la diw mongol la mm-hmm. waaye léeg-léeg doo ko xajal léeg-léeg doo ko comprendre léeg doo ko jàppale muy mbir yoo xam ne dañ caa war a bàyyi xel bu baax a baax a baax di sargal itam yaay yi nga xam ne ñoo yor yooyu doom ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci yor gi nu leen yor ajaratu lingeer wallaay ndeysaan ñàkk xam àdduna rek xam nga ku jégeegul dex waroo reekul rab dee damaa sànq naanaa ay dara di ko xam nga naanaa la tudd waaye man naanaa laa koy woowee naana mant naanaa mant laa koy woowee dégg naa ko sànq mu di ko wax mhm. wallaahi lazim bul ma ree sama président sama président ndax mën naa nekk sa fi futur. dëgg la nit ki yaa ngi dund xamoo lan ngay indi ëllëg. dëgg la ki ëmb tey sax mënu laa wax li muy jur suba lan la waxuma laa nag yow mi ci tollagul teyit nag gis nga yàlla moo sàkkal boppam délégué wul kenn ci pouvoir am pour nga defal ko kon man jàpp naa ne li mu def war nga ko mën a nangu mais kan moo koy njëkk a nangu nag yow mi mu ko séddee keroog bañ koy wax fii dama ne la yóbbante yàllaa wóor soo bëggee mu def ci sa ndab soo bañee mu def ci sa ndab kon nangul mu def ci sa ndab muy sëb cër dina la noppal di nga noppal sa bopp di nga noppal ñi nga dëkkal waaye nag takkul taxaw jatu ne soccat gis nga man li ma am boo koy fowee man mi ko moom maa koy fonk du ma la ci may nga reeteetal ma comme ni Pape Cheikh wax sànq du ma la ci may nga xoolal ma bët boo ko war xool boo koy xool man sax maa koy valoriser man far bala nga koy xool yow man maa koy teg ca kaw bala nga koy xool moo tax man su may delloo njukkal du ma delloo njukkal yaay yi leen am yépp de damay delloo njukkal yaay yi leen fonk ni ñu fonkewul beneen doom bi normal dëgg la parce que ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñoo am mérit bi dëgg la ba kenn du leen gis ci mbedd di leen jàpp di leen photo ko filmer comme niñ koy bañee dëgg la di leen dugal man dama dama xam eh, eh, léeg-léeg nga gis leen ci réseau effectivement mami pendant que nga ah, ci wax nga gis leen ci ci réseau Facebook yi nga gis leen ñu dugal leen ci WhatsApp dugal leen ci ay anam yoo xam ne jaaduwul ne bi nga koy jël di ko dugal ci WhatsApp boobu bu mbokkam teewoon xëy na doo ko jël di ko ci ah, dugal ñooy bës am na ci nag ñoo xam ne seeni mbokk waaye dina ñett ñuy weer fukk ñuy weer mbaxana Ah. nee naa la gis nga man su ma romboon ci buntu kër fekk nit ki di diri yaayam ko teg ci poubelle mbalit bi dama ko koy diril ba rëbës ma tegal ko mhm. ba mbëbës ma tegal ko ko mhm. nit ki ni nga def li nga am ñeneen ñi ci wàll si noonu lañ la koy defal am na ci ñoo xam ne seeni propre mbokk leen filmé mhm. am na ci ñoo xamante ne dëkkandoo yi ñu dëkkal te amuñu benn liggéey bu ñu def manqué na ñetti ñaari réer ñooy toog di leen filmer mhm. la ngay ree ca mbedd ma bàyyi nga ko sa biir kër dugal nga ree ko waaye xam nga ki mënta sàmm maamam ji nga xamante ne dafa amee alzheimer bay wax wax ju mhm. mag mi daan julli di woor di sàmm boppam bu demee bay summi ay yéreem mhm. di dem bay wax wax ju tegginuwul xamal ne mag moomu delluwaat na xale nga war koo sàmm yow mi ko am mais nga di ko filmer di woo say xarit kaay leen ree sama maam jërëjëf Euh, Ndiaye. ñu ngi yéen itam papa ngeen da ngeen am wàll. bon voisinage yi mu làmboo dafa bare diggante catholique ak jullit bi. waaye comme ni ma ko waxee da nga dëkk ak nit mu am ay doom doom yi am nekk ci yenn situation yi nga xam ne dafa dafa laaj daal prise en charge bu réel. waaw ah, euh, mi wax na fu am solo mooy euh, ki jur doom ji d'abord nan la téyee doom ji mu jur. c'est vrai xam nga doom yooyu day juddu. nga gis benn màggatum njuuma fële ñëw na la lii rab la. daan daan na am de waaw waaw. daan kii du nit rab la. Mhm. na la xale bi ah, day jékki-jékki rek dem rab la. yow nga ti yow mi koy xool nga koy téye rab te pourtant yow xoolal ndax nit la est-ce que li nit am am na ko walla amu ko dafa indi daal benn jëmmu rab. jëmmi nit la indi kon respectel jëmmu jooju ndax jëmmu yonent bi sax au moins. Mhm. ndax jëmm ji mu indi moom mooy jëmmu yonent bi moom la indi kon. nit ki Ndiaga mbay wax na ko ne daw ku wéradi mm-hmm. soo ko dayee ba mu xam ko mën na yokk la koy metti mm-hmm. mais euh, des fois mm-hmm. gis nga ñi ñuy filmer am na si ñoo xam ne seeni mbag seeni frère seeni cousin ñoo leen filmer am na ñoo xam ne seen yaay leen di tàccu ñuy fecc gis yow mi nga xam ne li nga am ni nga ko jàppee soo moytul noonu la ko keneen di jàppe te euh, li ma si gën a metti mooy naka la xale di naka la nit di jure doom nga taxaw na ki nga jur rab la déjà yow yaa njëkk a yàq euh, euh, euh, conscience am maanaam dooleeloo ko dooleeloo ko ne ko kii rab la bàjjen yi di la xas xamoon nañ ne lii nga fi indi ñoom itam bàjjen yi ci boppam ñoo lay xas xamoon na yàq xelu ku góor ki ne la xamoon nañ ne sa jabar ji lii la fi indi mhm. nga gis ku góor ki su nekkee koo xam ne irresponsable la. Mhm. mu commencé moom tamit di la fasal kanam mel ni yow li nga indi yaa ko bindal sa bopp. jëlal jëlal dama lay bàyyi sax nga nga dalal ki ci ligne bi. ndax la ngay wax am na solo. jë euh, ne ko salaamaaleykum salaamaaleykum. aleykum salaam. Mhm. soxna si na def. maa ngi sant yàlla baara na def. ça alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi lay dalal ci émission bi. maa ngi alhamdulilah bisimilah. Mhm. yegg naa ci jàmm baara. waaw. man la sa yaay. di leen seetaan. thème la semaine di leen déglu guddi gu nekk. Mhm. waaw. di ak ndoy baan. dëgg la. Mhm. waaw kontaan naa ci yéen lool. Mhm. ndeysaan. waaw ndax euh, ndoy baan nit ñi dañ koy critiquer mais ci dëgg rek la nekk. waaw kontaan naa ci yéen. jërëjëf. ma dellusiwaat ci thème bi. Eva. naam. na nga def. maa ngi sant yàlla maa ngi lay maa ngi lay fay bu baax a baax. waa kay na ngeen def. jërëjëf ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. jërëjëf. mami Linguère. yaa booy. waaw Linguère rek ngay mën a doon. <laughs> ndax ñoo bokk maam. ndeysaan Diop. ok na ngeen def. ñu ngi sant bu baax Diop. woote naa fi barki démb waaye woote bi dafa gaaw. Mhm. ndax heure laa doon jëkkanteel. ndeysaan. eh ndax. Euh, Euh, dafa jege si woon Eva ma jëkkante wax ji. ndeysaan. Mm-hmm. man maa la doon wax entre voisinage. Mm-hmm. religion chrétienne et musulmane. ah. waaw di la wax ne maa yoroo plateau. ndeysaan. waaw bët dem ma la doon wax ne maa yoroo plateau ba sama jàpp bi. day la boppam benn chrétien. axankay. waaw man la woon. Mm-hmm. Ah, sama goro. ki jaar sama ñaareel bi doom. ci yoon boobu la bokkoon. est-ce waaye tey jii bu sëbbee ci kanamu sëñ bi ne ko mbàkke mhm. sëñ bi jaar ci santam macha allah te yàqu dara sama digganteeg yaayam mhm. Mhm. waaw tey jii bu ma xewlee yaayam daanaka lu ci bari moo koy dugg fii day ndeysaan moo tax man wax dëgg yàlla diggante chrétien ak musulman mënuma lu dul rafet rafetlu ko ak kontaan ak sagoo ko di ko tiitaroo ndax man lu ma bu ma mënee ne a ah, wax naa la ne la chrétien moo ma dugal école. dëgg la. wax na ko nee na chrétien na ko dugal école ba nelaw na mu doon ko ñaanal macha allah yàlla defal ko jàmm mu mel ni noonu la waaye yaa ngi wax sànq mhm. wax nga ba euh, yaa ngi sax ci liggéeyu bàjjenu gox yi ndax mhm. ñoom nii la ñuy sensibiliser mhm. nee nga xale bu dikk ñëw ak ay malformation léeg-léeg dinañ dem ba ci famille bi daal am yoo xam ne daf cay xew te duñu gënal tuumaale ko tuumaale ko soxna si soxna si tamit loolu bu mu la def problème ñi ko amul. newuñu leen kii formation wala kii rab la te am na ñoo xam bu ñu jotoon ci kooku daw ba rëq te pourtant ay at ñu ngi koy wut ba dem ba sàngoo suuf mosuñu ko gis. kon ñi ko amul. Mhm. ñoom noonu nañ ngeen jot ci loolu. bu la dalee taxawal ci kanamu seetu laaj sa bopp. Mhm. ndax yow yaay problème wala yàppu problème. Mhm. parce que ñi ah, ñi dee woon daaw amuñu problème ren. kon nit. yaa ëpp lépp lépp lu nekk ci kaw àdduna rek yow yaa ko ëpp parce que yow yaa tax loolu ñëw kon bul jël problème foog ne problème bi moo la ëpp ba nga jël ko di ko jooy ku nekk ndax ki ko indi du nit yàllaa ko indi te yàlla du nit li tax mu jox la ko moo ko xam dëgg te am na ñeneen ñu ngi ko xañ jox la ko dëgg la kon amal responsabilité wu ak capacité wu gérer lu la jox mais bul dégg ay wax waxi bàjja nag ay wax waxi njëkkeek ay yenn wax yu sew yu ñàkk fayda yooyu ba yàq sa conscience ci ci ci li la yàlla jox parce que am na loo xam yàlla dala koy jox mais dala ci jaamuloo yàlla day xool ndax léeg-léeg yàlla boole la ak am xar sax mais day xool yow xar mi nan nga gérer xar mi parce que day day lay won na ku mënta yërëm mala nooy yërëmi nit mais ku mënta yërëm ku wàññeeku nooy yërëmi ku taxawut ak ak ne jon na ki noppam mm-hmm. Baye Seydina Issa nu ngi lay ziyaarawaat euh, di la wax ne xam nañ ne bàyyi nga nopp ci waxtaan wi mhm. ndax ku dul may sa bopp lu lu la sunu borom jox nga war koo jël te yokk koo sant mhm. ni ko ci dolli ko sant yàllaay dogal dana la jox doom doom bi ñëwee anam bii mu joxati la doom mu ñëwee beneen anam ànd ak lu mën ci am dañ ca war a sant suñu borom ba mu yëg ko macha allah nu dalal ki ci ligne bi ba noppi soogaa soogaa àggali salaamaaleykum ah mu mel ni kooku dem na euh, lay maxtaar bi simi waaw ci wax boobu nga wax moom fi nga daane rek lay tàmbalee. ndax euh, nit ki suñu borom bu subhaanahu day nattu ab jaamam. mën na laa nattu nag ci doom ji ngay jur. mën na laa nattu ci sa jabar bu dee góor la. mën na laa nattu ci sa góor ci sa jëkkër. bu dee jigéen nga. Ah. te loolu natt boobu déjà yàlla daf ñu cee jox benn exemple ci diggante euh, kii di ayoo Ayoba yonent la ak Rahmata soxnaam sa ndax 18 ans la feebar jabar yëpp dem bàyyi ko yaram wi dagg di siit sax yi di lekk aw yaramam jabar yëpp bàyyi ko jabar jooju moom mu ñël ko bu xëyee day dem di ko yalwaanal lu mu ko jox wante wala mu gàddaay dem bàyyi ko fa dafa euh, dem bés ci marché ba bi nga xam ne muñ na 18 ans teg ko benn place ndax benn yoon la bindi ndax sax moo laal xol bi bi mu bindee suñu borom da de ah da ngay bind mu nekk ndax xol bi laal dese pour gëmale ko te bu ko lekkee kon booba la mooy daanaka mbir mu mu jëmbe waaye keroog bi mu demee ci marché ba di ko yalwaanal dafa ñëw fekk suñu borom ba daal di koy restaurer jëmmam avec toute sa splendeur. macha solu ba tubarkal. est que. jabar ji ñëw fekk fi mu ko tegoon. te ki mu gis ak ki fi bàyyi wuute. mu nekk man de sama jëkkër laa doon seet. mu nekk ndax njortoo ne man la mu xoolaat ko daan ne waaw dafa man yow la kay mu nekk man la waa lii nag mu nekk sama borom moom ma delloo nii. foofu nag la ñu waxee ne. Mm. bépp jigéen bu muñal jëkkëram ay nattoom. wala ay daaguwaaleem wala ay jikkoom yu safaan. Mhm. ñu ne yàlla di lay fay yoolu soxnaam soos di raxmate mu muñ 18 ans. macha allah waaye bépp góor également boo xam ne bii dangaa muñal sa soxna ay insuffisance am ay manquement am ay daaguwaaleem. ñu ne loolu nga muñ suñ borom dalee fay yool seetu yàlla rax kii ayo ba te ayo bokk na ci vingt cinq prophètes yi nga xam ne tudd nañ leen ci alxuraan kon borom garaat la kon nag góor goo xam ne gii foofu nga sukkandiku ci sa référence yaa ngi yootu ci pay lii nga xam ne moom lañ jagleeloon ayo ba kazalika naka ku jigéen ki kon nag lépp day ñëw daje ci baatu ngëm muñ gi nga xam ne yàlla dana way ngëm ñi samay xarit lañu kon boo bëggee nekk xaritu yàlla muñal loolu laa mën a wax ci loolu nga xam ne suñ borom moo koy nattoo doomu aadama waaye pour dellu siwaat ci cohabitation bi ngeen doon wax léegi mhm. laa wax ne dafa nekk lu naturel ndax li ma wax sànq ñu juddu màgg fekk ka fi mu nekk lu naturel de sorte ñu bu ñu ko déggee mu nekk slogan ailleurs nekk ko fii dëgg ndax la preuve et c'est l'occasion mhm. armée bi dañ leen seetaan yaa ngi koy wax léegi. corps d'armée yooyu du soldat du gendarmerie du policier du sapeur pompier di eaux et forêt du service ñoo ñëpp yooyu mais. ay promotion la yu jàngandoo ba màggandoo ba daje ci koor yooyu. loolu dëgg catholique nga ca. Mhm. jullit nga ca ñëpp nga ca ñu ngay xaritoo. ñooy defandoo sport. Ah, ñoo doon maajandoo démb. dëgg ndax ci biir maaj gi ràññee nga ca catholique ak dul catholique. déedéet. jigéen ak góor nga ca ràññee. yaa ngi koy wax léegi waaw kon kay c'est tout à fait naturel. Ah. ñu ngi former corps. di defandoo toutes les actions ak benn harmonie. ba pare nag pare pour defendre réew mi su ko laajee. te ci loolu wax dëgg yàlla c'est l'occasion pour ñu féliciter le président de la République. c'est vrai ndax euh, dafa yokk ndax yokk gi mooy fekk na fi arme mu amoon bagage di armement. mu dolli ko ba pare yéene ne dinaa ko dolliwaat. dëgg te arme boo ko amee ba mu doy. Mhm. day nekk lu dissuasif. Mhm. maanaam day tax ñu wekk la. bu ñu nee kër gi dafa am cinq mille kenn du fa dugg eh, bu nee boroom kër gi sa am su yor yor bu dee fi lay toog dina tawaay fitalam kenn du fa jaar kon nag armement day sécuriser dëkk te bu ñu toogee cig dal ci réew mii toujours ñu wax ko ba mën a nelaw ñi jigéen ñi xawaare ñi nekk ci leneen dafa am ñu nekk ci frontière bi ngay nelaw ñu nga taxaw di relevanté te ñoo ñuy relevanté amaana jullit bi mooy relevé catholique wala catholique mooy relevé jullit bi mm-hmm. mais kon ñu ngi vivre en parfaite symbiose fii ci Sénégal. loolu daf fee yàgg moo tax ça me permet de ci benn exemple. bisimilah muy euh, Seydina Issa Rowlaay laa jël ci moom référence. muy sama trondo mm-hmm. Issa mu ngi fi toog 9 ba 49. nekk premier xalifa maam Seydina Limaamu Maalik mm-hmm. ay soxnaam yi mu yoroon ci kër gi. ki doon seet di gynécologue bi madam Gaye la tudde waaye gourmet la woon. eskay eskay lu tax mu bàyyi gourmet bi ci métier mu ñëw di seet jigéen mu jàng ci xam-xam eskay du dëgg waaw non seulement yemul foofu mhm. waaye dafa am benn at mhm. soxna soosu war a dem Popenguine mu nekk vingt cinq décembre loon jamono boobu waaw mu jël chauffeur bu ñu wax Baye Issa Fall dëkkoon Derklé mu ngi judd 1903 génn àdduna 2003 dund na téeméeri at moo ma nettali le 2 mars 1991 ci sama kër. waaw ne. Mm. Seydina Issa. Mm. da ko jox ko oto bi. nekk nag ko yóbbul madame Guèye Popenguine madame Guèye rue Grand Moro de mu fekk ko fa mu ànd ak ña mu àndal mu yàpp leen yóbbu leen Popenguine. est ba mu demee Popenguine. Mm-hmm. ba dellu mm-hmm. ak la mu fa gis tubaab yi jamono boobu ñoo fi nekkoon. Mm-hmm. bari fa lool mu ñëw mu daal di laaj naka seenu yoon. waaye moom ci xolam ñooñu catholique yi eh ñoom daal ñu nga fa nekkoon rek bon di dàngam di nàngam rek neen seen asara di ñëkk kanamam skay nee ma daal tiit ma ne ko ñoom daal ñu ngi doon vénéré kii Marie nangam naa neen bu daal di ree daal di war añ dem njàngat ca déwén sa mu doxaat ko même mission yabalaat ko popp ngir mu yóbbuwaat madame Gaye dem jël ci rue Gramont dawal dem dawal dellu si tubarkal macha allah ah. loolu c'est un exemple typique mm-hmm. bàyyi ko ci roowalaa Isa alayhi salaam jëm ci li ñu wax léegi. ci wàllu dëkkandoo. du dëgg bon donc loolu moo tax ma wax ne c'est naturel waaye 1946. lu ca xewoon. lu ca xewoon mooy dañ doon teeru Vincent Auriol président de la République de France. Mm. Majos la mu ngi jóge France. muy ñëw Sénégal ñu war koo tere ci waax ba. Mm. muy ca poor ba. Mm. kilifa yi diine Sénégal gépp ñoo fa teew keroog. Seydina Issa Rohou Laye Serigne Fallou Mbacké El Hadj Seydou Nourou sëriñ Canaba Alaaji Pedre Diop bi nekkoon grand Serigne Dakar kilifa yooyu yëpp ak sëriñ Mbaye si Serigne Babacar si ñoom ñëpp ñoo toog ñëw teeru ko yónneewuñu ay ndaw de. ñoo ko teeru. waaw ñoom ñoo ji ñoo ñoo nekkoon ci boppi kër diine yi. dëgg ki ñuy teeru France la ilif donte ñun ñu nekkoon colonie française mhm. waaye loolu ba tey. ëmbaale na lii ñuy wax. ndax mënoon nañ ne ginnaaw kële nangam ak nangam kon boog xam nga moo tax loolu dafa entrer en droite ligne. ci li nga xam ne lii moom la ñuy wax. mën naa ci citer d'autres exemple si vous le bien aussi. waaw euh, ndax Seydina Issa Rouhou Laye ba tey. dañ ko invité woon France en 1931. ci exposition de Vincennes du bois de Vincennes. exposition. waaw mu dem fa ànd ak ay ñu bari ñu jóge fii ci Afrique. waaye ba mu fa demee. def séjour. ah allo allo. ñoo ñu jógee ci naam. ça va. ça va bien merci. ah Baara Ndiaye laa soxla woon. mi ngi lay dégg. lay dégg. parce que Baara man la Binta Tine Thiès. ah Binta ça va bien. Binta naka. ça va bien. Tine. Hmm. yaa ngi si jàmm ñu ngi rafetlu émission bi. merci beaucoup. am na solo lool. ndeysaan. naka waa Thiès. ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm. merci beaucoup merci. ndeysaan. waaw ba wax ne. sama mbokku Thiès euh, moom ba mu jógee ci exposition de Vincennes boobu. di bois de Vincennes en 1931. bi mu ñëwee boobu Blaise Diagne moo fi nekk. te dafa daal di bind Blaise Diagne lettre le 7 juin 1932. moom moom Seydina Issa Rouhou Laye. lan la ko ci doon wax. en tant que nationaliste. mu nekk li ma gis fële daal ci France poste yi ma bël ma lay bëgg wax damaa bëgg ñu noircir que maanaam nañ ko jénk ñooñ réew mi doomi réew mi muy police ak gendarmerie ak service d'hygiène nañu ko jox doomi réew mi comme ni ma ko gisee feneen. waaw loolu la wax ci lettre bi mu na le 7 juin 1932. Mhm. adressé ko Blaise Diagne. Mhm. daan collaboré ak Blaise Diagne ci wàllu dëkkandoo moom mu ngi nekk ak dayoom moom na Nabila Issa kële Fra kële am na luñ ko doon tuumaal sax ci yoo xam ne yi dégg nga maam en dehors de la mu gëm mm. waaye terewul da doon diggaaleeg moom lenn rek la daawul def ak moom ci jamono booba du dem kër Blaise Blaise du ñëw këram waaye jël na otoom wàcc ànd ak Blaise ba ci garage bi mu bàyyi chauffeur bi yóbbu ko bàyyi tegal foofu loxo nu dalal ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam allo mbokk mi salaamaaleykum maa ngi ziar. waaleykum salaam wa waaw maa ngi ziar di ziar suñu sang boobu toog. Baye Seydi. ndeysaan ay Maxtaar. ziar Eva ah seen plateau bi tey macha allah am na solo. tabaarakallah. ñu ngi ziar ñëpp di bëgg a participer tuuti ci waxtaan bi. jërëjëf bisimilah mbokk mi. waaw ah, man maa ngi tudd Dame Mame Seydi. ndeysaan lay maxtaar bisimilah. naa Isa moom nag dafa dafa maa yëngal. est-ce que est-ce que. parce que dafa dafa tudd borom civilisation yi. est-ce que waay macha allah. ndax ñun Sénégal yàlla dañoo defal loo xam ni lu rëy la loolu moo wax lu am solo la. dëgg la. ñun jullit yi ak catholique yi wax dëgg yàlla. amuñu différence benn lañ. Mm-hmm. ndax bërki Dembo Ndiaye. Mhm. maa ngi doon defal Seydina Issa moom muy tudd 66 kaamil yoo xam ni dama koy jàng. dëgg la sax ko ci àdduna mhm. bi yëpp. jàng nañ ko Canada jàng ko France jàng ko Belgique jàng ko Mali jàng ko partout dans le monde. jàng ko Touba. est-ce que est-ce que Tiwaawan lépp pour yàlla def jàmm ci àdduna bi. amiin yaa rabbal aalamiin ci ngor la na yàlla ko yàlla nangoo daal na ko parce que sunu yàlla gën noo dool ci jàmm. amiin yaa rabbal kaamil yooyu bi ñu koy jàng am na benn famille catholique boo xam ne famille Da Silva maa ngi profité leen nuyu di leen ziar ñoom fi la ñu waaw. parce que. ñëpp fi la ñu yendu kon. macha rek moom mooy def différence entre catholique ak mm-hmm. musulman ñun nag laayeen dañu am chance dajale ñaari religion yooyu parce que Seydina Isa moomu mu lay wax. waaw. kooku mooy yéen yàlla Isa mooy Jésus Christ. mooy mm-hmm. doomi Mariama ji. Mm-hmm. moo tax mu yónni woon góor googu ni ko demal Popenguine ngin xool la ñuy def baayam mooy Seydina Limaamu mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gis nga kon gis nga jullit ak catholique mosuñoo séparé wu ndax yonent bu nekk yonent moo lay annoncé yonent moo lay confirmé est-ce que histoire yonent yépp ay jullit la ñu woon yàlla musta yónni yonent bu dul jullit ndax Isaa moo annoncé Muhammad yi Mahdi moo ñëw confirmer ni kii mooy sama doom mooy Issa moo may wutu. ndeysaan. kon ñun on a tous les religions au Sénégal. alhamdulilah rabbil alamin man léeg-léeg du ma ciy bëgg sax ñu ci débattre naan entre jullit ak Sénégal benn lañu man mii di wax a yow am naa sama xarit ñi ngi ñu ngi may dégg famille Mendy à Thiès. Mhm. Pierre maa ngi euh, euh, Michel Mendy bi mu génnee àdduna man maa leen abal sama oto ñu ñëw hôpital Fann. borom ñoo jël néew bi ñoo ko yóbbu église ñoo ko préparé ñoo ko denc muy sama xarit. yaayam mère Ebe di suñu xarit di sama yaay. ndeysaan cey macha allah waaw kon xam nga li mu wax tubarkàlla maa ngi koy gërëm moom daam maam Seydi moom mhm. di jàmbaar macha allah ci taxawaayam mhm. li mu wax léegi dëgg la fii ci Ngor la ñu doon defee 66 kaamil yooyu am na solo waaye tasaare ko téje ko fii mhm. ma doon wax ne kon Seydina Issa Rouhou loolu la digaale woon ak Blaise Diagne pour taxawoo ko réew mi. ak demander ñu noircir les post la jox ko autochtone muy waa doomi réew yi. très bien waaye tamit en temps demander waale ko ne ko nag yii ak jur gi ñuy yeb. di yóbbu récolte yi. Mhm. metti na nañu def des routes loolu la wax ci lettre ba kon c'était un nationaliste mais. Mhm. Euh, pour dellu si ci Seyna Issa. bi mu demee 1949 Saint-Louis. waaw Lamine Gueye moo ko invité woon. Mhm. booba c'était lors du départ du gouverneur Wiltor. Mhm. ñu war a installé maar Lamine Gueye nag nag dañoo bëgg nga ñëw ñaanaka ko bala muy toog ci siis bi keroog Seyna Issa ba mu voyagé par autorail la njaboot gi mbooloo mi a dem par la route ba mu ñëwee Ndar. keroog bañ ñëw ba ñëpp ndar gépp génn di ko teeru keroog. mu def sañseem bu taaru bu jekk ba ak gants yi ak botte ya kaala gu ñuul ga gu weex ga ñëpp di ko xaar keroog waa ndar gépp xam nga ndar ñoom ñu mën gan lañ. waaye ba mu ëgsee nii la doon def di leen nuyu naan leen nii rek naan leen nii rek. am soxna soxna si moo dagg ca laa nga ñëw tàllal ko loxo ñu koy téye mu ne bàyyi lañ ko mu ëgsi mu ne jël naa sama loxo bi mu nekk loxo waa ndar gépp ma takk ci sa loxo. waaw mu daal làmb poosam tombit ci xam taraanga teg fa billet yu mag a mag nekk maal maala ko dëggale sa kàddu gi waaye ba mu nekkee ndar ba loolu muy def pare na ci ba pare ba mu ñëwee get ndar kër góor gi maam yàgg maar géey kakateeru di Birahim di doom je ñu ngi may dégg ci get ndar kër googu la seen ay saa dal waaye ba mu ñaanal waa ndar dafa tàllal loxoom di ñaan di ñaan ku ne xam ne ne ndar moo nekkoon ancienne capitale. bari yaa na tur yoo xam ne yi day am turu jullit ak bu karatu bu baax ndax boo déggee Golbert da ngay yaakaar ne fële la bokk. muy Golbert Diagne doomam a ngi fii. loolu daf fee yàgg. Mhm. de sorte que day ñaan di ñaan di ñaan ba yàgg ferñeent yi génn ci gémmiñam nekk multicolore ba yàgg mu ne yàlla subhaanahu wa ci sa màgg ak sama barke bay ndar yëpp tàbbal leen àjjana. macha allah waaw kon kay foofa. nanu ko yàlla defal seetul day mel yoo woy rey rek. seetoo bi la matt ak bi la mattul da ngaa tàpp rek. loolu day dëgg parce que boobu tam ko woon waxagu ko fi ñi mu fi waxagul yëpp maa ngi koy bind tabaarakalla ma mami dolli nañ la boobu yow woy woy booy rey daal amul différence boo ca xam ne caat ak may rey cinq minutes yi mot na waaw. kon delluwaat di tàgguwaat ñëpp rek di wax ne waxtaan wi rafetati na mhm. lay lay maxtaar ñu ngi lay ziar di la wax ne ziaral ñu suñu soppee ñu fa am yëpp soxna Rose Diagne ak maam Ousmane Kébé ñu ngi koy ziar Rose sama sang di jaara rek di wax joyeux anniversaire Nafi Diagne mm. walla ji Basirou Diagne Marème Diop yaay Amina sama doom sama ah. sëriñ yàq yaay Baba Diagne borom Dakar dundal ba énervé loo dund doyul sama xarit xool sama sang di tàgguwaat waa mm. dem man doon petit rek yow nga far di xoo kon lépp dina neex di santaat ñëpp di gërëmaat alxuraan yi baax allah mami boo fi newul woon daal danaa la télécharge <laughs> bàyyi kaddu kaddu gu mujj rek macha allah tàggatoo bu dul tàggatoo waaw benn exemple rek laa jël waaw ndax ki ilif euh, église bi yëpp waaw mooy pape bi waaw 92 la fi ñëw dëgg la mais bi muy ñëw lu ñu jéemoon la ay yoon antuwul waaw waaye ba ko yàlla suñu borom ba dogalee ci jamonoy Abdou Diouf mm-hmm. Serigne Ablaye Thiaw mii toog ci xilaafa gi. waaw yal na ko yàlla dëgëral. moom moo ko teeru aéroport. jërëjëf gis nga kooku tam misaal la waaye ëllëg sa nag. waaw ba ñu dajee chambre de commerce. waaw kilifa yi dee na yëpp dañoo yebal ndaw. teeru ko mu yebal sëñ Moussa Gueye jarbaatam mu tabaarakallah jëf Baye kontaan nañu bu tee xam naa ne bu xuusoon itam ba ca kanam euh, histoire la ñuy dégg et c'est beau ñuy déglu histoire euh, di rafetlu waxtaan bu baax a baax di ñaanit ñi ko doon déglu yëpp ñu jëlee ci ay jàngat te jëfe ko mm, euh, di gërëmaat rek ñi ñu doon déglu sama ñaari yaay du ma noppi di leen nuyu di leen ñaanal yàlla mm-hmm, mm-hmm. yàlla guddal seen fan mm-hmm. di ñaan rek Euh, jàmm yàgg ci dëkk bi te sax fi waaw ah, comme waxtu yi dam nañu ñi ngi sant ñu ñu doon déglu ñëpp nuyu waa Thiès yëpp tamit nga xam nga fa laa màgge jànge fa maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ni mu ko waxee ci Seydina Issa ndeysaan bu nu fi teewoon itam waa Njaasaan bu nu dikkoon dinañu wax góor gu tedd ga la mu waxtaan waa euh, Kaolack bu nu dikkoon dinañu ko wax macha allah Touba Tiwaawoon comme ni mu ko waxee dëkk bi daal jàmm yàgg na fi yàlla na yàlla yàgg dolli jàmm macha allah ànd yi gën a ratax diggante yi gën a rafet ku ci nekk nag danga am am ku la jiite ñi nga xam ne ñoo jiite ñu may leen rek ñu jiite ci jàmm ak salaam maanaam responsable yi mag yi bureau yi nga xam ne ay DG fa nekk yooyu yëpp dafay defar ba ci sunu président de la république mhm. keroog maa ngi koy wax maa ngi naan ndeysaan boo boo fa boo boo jiitee ba noppi maximum de tolérance la laaj yaa ngi koy wax sànq ndax ki nga xam ne moo jiite moom moom affaire yi mhm. léegi nag bu gënee yaatal dafay daal di gën a rafet mhm. tabaarakàlla macha allah bisimilah waaw sëriñ Ablaye Thiaw nee nee na ku jiite ñun la sa taatu réew yi noonu la ko waxee fekkente ne. ku la wax nga tontu nga taxaw gesu ko du àgg fa nga bëgg a yéeg ci garab te ku la wax nga daal di wàcc defanteeg moom du yàgg ba nga toog ci garab gi macha allah ngeen baal nu àq bu baax a baax numéro Khadim Diouf ndax nekk gars ma ciy mere kay may envoyé message nee na ma dañu baaxee numéro bi ñuy sañse na yow 78 137 69 75 78 137 69 75 wala ko mag jëppikin mu defal leen ñu ngi nuyu ñëpp di remercier groupe eh, équipe bu Miyandour bi nu gungee di nuyu sunu xarit bii gë fay du nu fàtte soxna Umu Diallo xaritu ami say faal yooyu ku ku njëkkeem solal mbubb lu ngeen ci xam léegi yéen laay bàyyi ngeen natt mbubb mi rafet naam rafetul ami say faal jërëjëf waa ndar yëpp nu ngi leen di ziara macha allah dunu liim dunu liim waaye macha allah waa Tiwaawoon waa Kaffrine waa Njaareem nu kenn kenn kenn may remercier également ki nga xam ne mooy euh, euh, naka lañ koy waxatee salon Fatoumata coiffure mu ngi nekk ci 648 56 Mariam Chalar yow laay foon foon bu mag di la féliciter bi nga xam ne tijji nga ko boutique boobu mi ngi nekk cité kër góor gi ku dem ba wetu sàmmi incha allah di nga fa fekk waa Chalar Déco ñu koy ñaanal gudd fan ak entreprise am boobu Mariam Chalar di sama doomu ndey noonu lay nuyoo itam Chacha borom satisfaction macha allah di jigéen ju baax sunu tata Yande ñooñu ay femmes yu entreprenant lañu kon Eva Tra mi ngi leen di sargal tey dans Wareef di leen ñaanal gudd fan bu ànd ak wér jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs